asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. wa naudu billahi min shururi anfusina wa min sayyiaati acmaalina man yahdihi llahu fala mudilla lah wa man yudlil fala haadiya lah wa ashhadu an la ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadahu rasuluh sallallahu wa sallam alayhi wa ala alihi wa ashaabihi ajmain. mbokk jullit yi xam ngeen ne association islamique yi ñi ciy liggéey ay jullit lañ. ay sénégalais lañu itam nekk it ay africain di am mbégte nag ak ak jant ci lii leen seen borom tabaraka wa taala tànnal ci yooyu yi ñu doon ay jullit doon ay sénégalais doon ay africain liggéey bi ñu liggéey it waxuñu ne l'islam dafay amuloon ba mu yàgg association islamique yi ñëw indi ko fi waaye dañoo ñëw sof ca lañ ko fekkoon ci liggéey fas yéenee boole nag di raxas ak di dox jëm kanam bëgguñu tilim waaye bëgguñoo taxawit nag kon li nga xam ne ci la kàddu gi jëm muy tatalluwaat yi ak tumuxaat yi koy tuddee ay perspective ak ay ambition muy bëgg-bëgg yi ak jubluwaay yi nga xam ne moom lañ bëgg a def fën jëm loolu day lu takkoo takku la waaye suñ koy gàttal dañuy wax ci benn baat bàyyi xel fii ne ñuy wax na ay perspective la muy ay jubluwaay yuñ bëgg amal doonoon ay bëgg-bëgg yoo xam ne dañuy wax ne dañ koo bëgg ba noppi dem tëdd rek ne xëy na mën naa am waaye mooy yi ñu bëgg waaye ci la ñuy xëy di ci gont ñoo ñi àndal ñëpp na te jàpp naa ne li tàmbalee fii tey jëm kanam laxasaay yi day gën a fett li ko ngir liggéeyal mébét yi nga xam ne moom lañ tudd kon nag ci wàllu tasaare lislaam ak jàngale ko ak woote gi ñoom seen bëgg-bëgg mooy doomi aadama yi nañu dem ba dégg seen diine déggiin woo xam ne dana leen génne ci lëndëm yóbbu leen ci leer génne leen ci lëndëm bokkaale yóbbu leen ci leeru wéetal taati caaxaan yóbbu leen ci leer boo xam ne leeru génne leen ci lëndëmu jikko yu ñaaw yóbbu ci leeru jikko ba sunu société mën a dem ba nekk misaal ci dëkku akuk leer ak maandu bi boobu jàllee ñi ngi séentu di góorgóorlu di mébét dem ba ci Sénégal am benn organisme genn mbootaay goo xam ne dana mën a boole mboolem ñi nga xam ne ñooy liggéey liggéey bii ñu topp ci seeni njiit ci wàllu xam-xam wàllu woote fii ci réewum Sénégal te mbootaay bu noonu bu taxawee dana lijjanti mbir yu bari yenn juyoo yi am ci ay diggante dana mën a jaar ci yoon yu jub ci wàllu dialogue ba dëgg leer ba ka nekkoon ci ñoom te mën a dégg liggéey boo xam ne xalaat yu juróo yi faral di am ci feeti jullit yi dana mën a dem ba saafara mbooloo moom yi bu taxawee dana dem ba mën a jàppale ñi nga xam ne ñoom lañ fase jiital leen ñu ne ci kanam askan bi ci wàllu réew mi ci faj problème yu bari yoo xam ne dafa nekk ci biir diine ji yoo xam ne ñoom mbootaayu lislaam yi lañ ca man dëgg dëgg dëgg ci mën ko saafara ci biir kër ak gouvernement sax mun kon bu boobaa danañ doon ndimbal ci ñi nga xam ne ñooy sunu njiit yi ndax mën leen a jàppale ci faj yu mel noonu mbootaay boobu su taxawee dana mën a dem ba dundal ay mbir yu bari yu am solo ci lislaam yoo xam ne dafa demoon bay bëgg a raaf wala bu raafu nit dafay mel ne nun suñ société niñ ko war a xame xame wuñ ko suñ tuddoon lu mel ne wax fa tey dafa mel ne nit ñi dañ koo fàtte wala xamuñu ko mbootaay boobu war na mën a dem ba taxaw taxawaay bu baax a baax a baax ba jullit yi ci biir Sénégal ñu xam li ñuy tudde waqf ban taxawaay la am muy nit ki jël alalam def ci loo xam ne lu rëy la loo xam ne day jëriñ askan wi mu ne lii lislaam laa ko defal waaye askan ñi ngi mébét fexe ba wéral jégg-jégg yi ci li ñu tuddee citoyenneté muy almuwaatala bi ñu doon wax léegi fexe ba mu leer dëgg dëgg dëgg xam mooy lan ci xol yi muy bëgg sam réew loola day gannaaw bu askanoo ci jàllee ñu xam ne moo di développé sam réew développement bu mat sëkk boo xam ne day tàmbalee ci tabax doomu aadama bala ngaa tabax simaan foofu lay tàmbalee ci biir loola ñuy woo mboolem ñi nga xam ne ñooy waa réew mi te ay responsabilité wala ñu ñàkk koo yor ñu jiital intérêt xeet wi ci intérêt personnel maanaam loo xam ne yow yaa koy jëriñoo wala intérêt sa parti wala intérêt sa kuréelu diine nañ fexe ba la njëriñ xeet wa jiitu yooyu yëpp ba su intérêt national taxawee kenn ku nekk la doon wax naan ci man la jëm wala ci sama kuréel la jëm wala ci sama parti la jëm loola nga teg ko ca wet ga ba intérêt liy jëriñ réew mi ak jullit yi jàll nga doon wëlbatikuwaat ci sa këru bopp loolu xemmem féef la boo xam ne doon itam aw naal boo ne fas nañ ci liggéey ci tomb bu njëkk bi muy tasaare lislaam woote ci ñaareelu tomb bi moo di fi majaali taalim ci domaine jàng ak jàngale ñoom day ñi ngi mébët dem ba àgg ci njàngum alquran mu set wecc moo xam ne dafay boole bayna al muasalati wal maanaam day boole originalité ak modernité njàng moo xam ne day boole démb la ca baax mu jël ko ak tey li ci baax mu jël ko njàng moo xam ne ndonga la da cay gis boppam day da ca biir daara ji yëg ne moom mii kat kuñ fonk la kuñ teral la ku ñu la bu génnee dajeeg donc moroomam mam tollooli at te duggul ci daara day feeñ nu muy feeñe mooy ñi xam ni ki nekk daara kon daa gën a set dafa gën a yew dafa gën a amuk dal waaye bu safaan ba xam ne kii taxawal ci mbedd mi moo gën a set mu gën a amuk dal gën a xel lu kii génn ci daaray alxuraan su boobaa liggéey ba jëlagut yoon wa kon ñu ngi séentu ci biir loolu dem ba àgg ci sun bi dëkk yu mag yi ak yu ndaw ya mbedd ya boo ko dee dox mën a dox ba jeexal doo gis gone gu yor bot di loolu ñu koy séentu ñu ngi yëgle ne loolu yi ñuy wax ne dañ koo mébét ñu ngi ci yore seeni programme yu leer nañ ñi yu weex tàll xam yoon bi ñuy jaar ba def ko kon li des mooy ku leen jàppale bokk ak ñoom xalaat boobu ngeen def partenariat boo xam ne dangeen ngeen mën a bokk liggéeyal réew mi ndax yu ñaaw yooyu ñu fi teg bët te di ko tudde diine ci lislaam kilifa gi wax léegi junj na ne mi ngi fi ngi taxaw waxu kay mi ngi taxaw taxawaay boo xam ne bu dëgër la boo xam ne meññeetam tàmbali na di feeñ ci ay compétence lu am solo yoo xam ne ñu ngi génne ci daara yooyu di def enseignement supérieur islamique boole ko di jàng kàllaama ak arab di jàng français ak anglais ca biir ak di jàng yeneen ak yeneen ñooñu yëpp ay génn ne tàmbali na woon gis xam ne li lu am njëriñ ci réew mi ñu xam ne fii Sénégal li fi nekk ci ay écoles yu arabe yuy génne ay nit ñu am baccalauréat ak mu nekk ñi am bac ci école yi arabe yi par at ñi ngi koy xayma ci diggante six cent ba ci sept cent maanaam juróom benn téeméeri nit ba ci juróom ñaari téeméeri nit ñi ci am bourse ak mu nekk ngir di dem jàngi ci réewi arab yi matul téeméer kon def na lim bu bari boo xam ne kenn xamul fuñ jëm te kenn ku nekk xam na ne programme bi ñuy jàngale ci école secondaire yi jàngale arab ka yam ci bac rek kooka am jàngam doyagul te diine laajut dox ba ci diggante bi nga taxaw dafa laa jàng bu mu wóor jàng bu baax a baax a baax baax yu bari yu ñu gis ci ay jafe-jafe ak ci lëndëm lëndëm ak ci xeetu dëgër bopp ak ci wàllu boobu ànd na ñoom yëg nañ ne foofu lu am solo am na fi ci at yu mujj yi muy dugal njàngoom diine ci biir enseignement public bi ànd am solo boobu ñu ngi yëgle ne ñoom it noonu lañ yëge am solo enseignement supérieur boobu mu doon loo xam ne lu taxaw la di ci séentu ak jàppale boo xam ne bu jógee ci wàllu autorité la jàppale ga nag weesu wut diplôme yi ciy génne ñu nangu ne lii diplôme xam-xam la comme ni ñuy nangoo ne diplôme ba jóge Algérie wala Maroc wala Arabie Saoudite wala Égypte diplôme xam-xam la loolu rek moo leen itteel te yàlla xam na ne diplôme xam-xam la ndax ñu ciy jàng ba génn ca yor diplôme boobu suñ toogee seen morom yi jóge Arabie Saoudite wala Égypte wala feneen def ba àgg ci orma ji mu soxlaw ji mu ah lislaam jox te moom ci boppam mu aajowoo ko orma jooju ñu jox ko ko ndax kat ñoom yëg nañ ne jigéen maqaamaam gën naa kawe ñi koy jëfandikoo rek ngir jumtuwaay boo xam ne boo amee solooy jaay boo publicité boo tafee sa tableau teg ko ca mu def yaramu neen boo génnee sa publicité ci télévision boole ko ci mu def yaramu neen ma ne ñoom yëpp nañ ne maqaamam jigéen ëpp na loolu bu fekkee ne ci domaine social ba mbokk yi wax nañ ci lu am solo lañ ca wax rek mooy ñi ngi yëgal ne ànd ak yii ñu jot a def ñu ngi ubbi seen dënn di tàllal am benn partenariat boo xam ne projet yi am solo yi jëm ci wàllu social wala ci culture te sunu société bi aajowoo ko nun jekk nan pare nan pour jàpp leen beeg njiit yi ne ci réew mi ngir liggéey ci anam boobu liggéey bu am solo mboolem leen am ci ay man-man ak i xam-xam ak sax ay xame di relation ci suñu biir réew mi wala ci bitim réew loolu lépp jekk na ngir tàggat ko ndax mu mën a doon loo xam ne day liggéeyal suñu réew mi ci wàllu social ak bu fekkee ne ci wàllu li ñuy tuddee al muy domaine sécurité ak stabilité ñoom ñi mébét dem ba ci benn sénégalais boo xam ne dafay am yitte ci fas yéene lépp luy indi sécurité ak jàmm ci réew mi mu di ci ci gont li waral loolu moo di xam goo xam ne xam nanu ko jàppaloo gi nga xam ne yii ma tudd muy sécurité ak stabilité am na ko digganteem sàkku violence boobu moo xam ci wax la wala ci jëf loolu ñu ngi koy bañ ñu ngi koy xeex itam ci seen kem kàttan ñi ngi mébét di séentu fële nga xam ne mooy suñ sit muy Casamance mu dem ba àgg ci di dund ci suufu sécurité ak stabilité ak jàmm ak naataange di rafetlu it effort yi nga xam ne état bi mi ngi koy def ci jamono yu mujj yii ci liggéeyal anam boobu boole ko ak jëf joo xam ne wax ju bari àndu ca loolu koy rafetlu bu baax ñi ngi mébét itam am ak partenariat ci organe de presse yi nga xam ne dañoo jóg ngir yëg ne liggéeyal Sénégal moo leen tax a jóg ñu fas yéene jàpp leen feeg ñoom ba seen niveau mën a yëkkatiku ba àgg ci jiital jariñu réew mi ci jariñ lu mën a doon fexe ba mën a wattandiku jàppale leen ba ñu mën a wattandiku lépp loo xam ne mën naa indil seenum réew fitna moo xam lu wax la moo xam lu bind di ko jàng la fexe ba li nga xam ne mën naa am ci diggante nit ñu mbokkoo woon ñu tàqale seen diggante ndaw ñi ne fekkee ci domaine régional bi la ñi ngi woo mboolem mbooloo yi nga xam ne dañoo jóg yor ay ngannaay moo xam islamiya la maanaam ay mbooloo yu tuddoon islam wala qawmiya muy mbooloo yoo xam ne wàllu nationalisme la ñuy woo mbooloo yi nga xam ne dañoo yaakaar ne seeni soxla mënuñu caa àgg lu dul ngannaay moo leen ca a àggale ñi ngi leen di woo ñu ragal yàlla te xoolaat seenu doxiin ndax kat woowa doxiin njuumte la nañ wattandikul sunu gox bii mu tàbbi ci fitna joo xam ne su ca tàbbee bu dikkee dana yàq lu bare bari te du defar dara jaar-jaar yi waaye boobu jamono yi nag ñu ngi yàlla def jàmm sàmm nu sàmmal nu sunum réew sàmmal nu sunuy jaamu yàlla sàmmal nu itam sunu gox ak ñu mboole ñuy jëkkal muy réew yi sësaloon yal na ko yàlla def jàmm bépp fitna boo xam ne bu fa tàkkal yal na ko yàlla fay kenn ku nekk dellu ci sa kër ngi teg ngànnaay yi nga xam ne suuf si jàmm rek moo fi xaj waaye leneen lu dul loolu min amrina rachada واجعلنا هداة مهتدين اللهم اختم بالصالحات أعمالنا واجعل خير أيامنا يوم لقائك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين